juróom fukk ak juróom ñett yonent yàlla sakariya
mbokki déglukat yi asalaamaaleykum nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njubbi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci leenu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub am na ñaari émission jàngoon nanu ni yonent yàlla yëremi arto woon ay mbokki yow tam ne suñu fonkul kàdduk aji sax ji bañ a tuub seeni bàkkaar yàlla dina bàyyi xarekati babilon ñu dugg si yàq seen réew yóbbu leen fu sore wante lu ëpp ci yawut yi faalewuñu woon artu yeremi kon gisoon nanu ni kaaraangeeg babilon jóge woon penku yàq yerusalem toj kër yàlla ga jàpp yawut ya jaam te yóbbu leen babilon ni ko yonent yàlla yeremi waxe woon noonu la xeetu yawut ya tase woon ndax seen bañ a dégg waxu yonent yàlla yi wante bu fekkee ni ñàkk kóllëre amoon na ci xeetu yawut ya ndax loolu mënoon na fanq kóllëre ak yàlla mukk déglu leen li yonent yàlla yeremi waxoon yawut ya nekkoon léegi ay jaam ca babilon ndax seeni bàkkaar mu ne leen aji sax ji mën lépp di yàlla yi israel wax na lii mbooleem jaam ñépp ñi ma jële yerusalem yóbbu leen babilon bu juróom ñaari fukki at yi ma àppal babilon mate dinaa leen nemmeeku matal ci yéen sama kàddu gu rafet ga ba delloo leen yerusalem ndax xam naa xalaat yi ma namm ci yéen du xalaati musiba waaye yu jàmm ba may leen mucc ak yaakaar ci wax jooju la yonent yàlla yeremi doon xamale yawut yene su fekkee sax ñoom fàtte nañu yàlla yàlla moom fàttewu leen noonu fileeg juróom-ñaar fukki at yàlla dina leen delloo ca seen réew maam moom la yeremi waxoon yawut ya nekkoon ay jaam ca babilon ci dëgg-dëgg yàlla kuy sàmm kóllëre la yàlla fàttewul li mu digoon ibrahima bu yàgg bi mu ko naan xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci xeet wi soqi ko ci yow yàlla fàttewul ni mu dogale woon dénk doomi israel kàddoom ngir jottali ko doomi aadama yépp ba fi nu toll ci sunu njàng gisoon nanu ni yàlla doon tànne ay yonentam ci biir yawut yi xiir leen ñu yëgle kàddoom gu sell gi te bind ko ngir niti jamono yi di ñëw xam nanu ni yàlla sole woon téereb tawret ci xelu musa ak taalifi saboor ci xolu daawuda te gisoon nanu it ni yàlla xiire woon yeneen yawut yu mel ni yosuwe samuel suleymaan esayi yeremi ak daniel ngir ñu bind kàddug yàlla te it gis nanu ni mbindi yonent yooyu yépp ëmbe woon benn xalaat ak benn xabaar ndaxte li ko dale ci ibrahima jëm kanam yonent yàlla yépp yëgle woon nañu yéene ju rafet ji yàlla rabatoon ngir jaarale musalkatu àddina ci xeeti bànni israel tey ji nag dinanu gis ni yàlla doon jëme kanam pexeem ngir wàcce almasi bi ci àddina ndaxte dinanu gis ni mu delloo woon yawut ya ci réew mi almasi bi naroon a juddoo dinanu jàng ni yawut ya dellusee woon yerusalem gannaaw ba juróom ñaar fukki at ya yonent yàlla yeremi yëgle woon mate waaye bala nuy dugg ci saar wii war ngeen fàttaliku ne ci jamono jooju réewum babilon tuddatul woon babilon waaye perse la tuddoon ndaxte persa nootoon babilon kon ci téereb esras saar benn mbind mi neena ca at mu jëkk mu sirus buuru perse ngir matal kàddug aji sax ji gi yeremi wax aji sax ji leeral na xelum sirus buuru perse mu yéene ci kàddu gu bir ak ci mbind xebaar bi ci biir réew mépp sirus buuru perse nee na aji sax ji yàllay asamaan yi jox na ma réew yépp ci kaw suuf te sant na ma ngir ma tabaxal ko kër ca yerusalem ci diwaanu yuda kan ci yéen a bokk ci mbooloom na yàlla boroomam ànd ak moom mu dem yerusalem ca yuda te na tabax kër aji sax ji yàlla yi israel noonu boroomi kër yi soqiko ci yuda ak bensamen sëriñ yu mag ya ak ñi xeetu ci lewi ak ñépp ñi aji sax ji leeral seen xel jóg ngir dem tabaxi kër aji sax ji ca yerusalem seen dëkkandoo yépp jox leen dimbal ay ndabi xaalis ak yu wurus alal ak jur ak defukaay yu jafe gannaaw sarax yépp yu sedd xol buur sirus delloo ndabi kër yàlla aji sax ji yi nebukadnesar jële woon yerusalem te def leen ci kër yàllaam ndax yàlla amaloon na li mu dige woon bu yàgg jaarale ko ci gémmiñu yëremi yonentam waaw kay gisoon nanu ba noppi ni yàlla bàyyee woon buuru babilon mu yàq yerusalem te toj kër yàlla ga ni ko yeremi yëgle woon tembe te léegi gis nanu ni sirus buuru pers sante woon yawut ya ne ku bëgg rekk na dellu ca seen réew ngir tabaxaat kër yàlla ga ak dëkku yerusalem ni ko yonent yàlla yeremi yëgle woon ci lu wér aji sax ji mooy buuru buur yi moom mooy kiy doxal jamono yi te lépp lu mu yëgle dina am noonu mbind mi day nettali ni menn mbooloom yawut génne woon réewu perse tukki ngir dellu réewum yuda ak dëkku yerusalem benn yawut bu tudd sorobabel moo leen jiite woon ba ñu agsee yerusalem nag li ñu gisoon jaaxal leen lool dëkk bépp yàqu te kur yàlla gu rafet gi suleymaan tabaxoon daanu desatu fa woon dara lu dul tojiti doj ak doomu taal naka noonu mbind mi day nettali ni yawut yi jëkke woon dajaloo ca bereb ba këru yàlla ga nekkoon daldi fa defaraat rendikaayu sarax noonu ñu rendi ay mala gërëm yàlla aji sax ji te màggal ko ci li mu leen aaroon ca babilon ak perse diirub juróom ñaar fukki at te delloosi leen ci seen réew noonu mbind mi day nettali ni yàlla ànde woon ak yawut yooyu dimbale leen doole leen ba tax ca mujj ga ñu àggale liggéeyu tabax kër aji sax ji ak dëkku yerusalem ak miir yi ko waroon sax xëy na am na ci yéen kuy laaj waaw ban maanaa la nettali dellusik yawut ya ci yerusalem am ci nun mbokk yi dellusik yawut ya ci seenum réew lu am maanaa lool la ndaxte dafa dëppoo woon ak yéene ju rafet ji yàlla amoon ngir wàcce ramukatu àddina si ndaxte ci réewu yuda moomu la almasi bi naroon a juddoo kon fokk yawut yi dellu si woon ca réew mooma ngir almasi bi mën fa juddu ci jamono yi dellu si yawut yi ci yerusalem nag yàlla feeñaloon na leen benn yonent bu tudd sakariya war ngeen xam ne sakariya mile bokkul ak sakariya bàyyi yonent yàlla yaxya yàlla yónne woon na sakariya ngir feddali ngëmu yawut yi te xamal leen ne ab bi mu tëraloon ngir wàcce almasi bi mu ngi doon jege si juróomi téeméeri at rekk a desoon laata ramukat bi di gane si àddina nanu gëstu tuuti ci wax yi yàlla soloon ci xelum sakariya nu ngi jàng ci téereb sakariya saar benn mbind mi nee na kàddug aji sax ji wàcc ci yonent yàlla sakariya doomu derekiya doomu ido ci baat yi aji sax ji mer na mer mu tar jëme ci seeni maam bu leen mel ni seeni maam yu yonent yàlla yu jëkk ya daan waxal naan ci làmmiñu aji sax ji mën lépp dëddu leen seen yoon yu bon yi ak seen jëf yu ñaaw yi waaye ñu bañ a dégg te ñu bañ ma faale la aji sax ji wax seeni maam anañu te yonent yi ndax mën nañoo dund ba faaw moona samay kàddu ak sart yi ma joxoon samay jaam yonent yi ndax agsewuñu ci seeni maam ndax déglu ngeen bu baax ni yonent yàlla sakariya arto woon yawut ya mu ne leen aji sax ji mer na mer mu tar jëme ci seeni maam bu leen mel ni seeni maam lu taxoon yàlla mere maami yawut ya yàlla dafa leen mere woon ndaxte faale wuñu woon kàddug yonent yi mu leen yónnee loolu moo taxoon ñu mujj a nekk ay jaam ca babilon ci lu wér seeni maam amoon nañu diine waaye xolu yàlla seddul woon ci ñoom ndaxte fonkuñu woon waxu yonent yi yawuti jamono jooju dañu meloon ni niti jamonoy tey ji ñiy wax naan ah nun daal gëm nanu yonent yépp waaye ci lu wóor gëmuñu yonent yàlla yi ndaxte faalewuñu li ñu bindoon ci mbind mu sell mi noonu la ñi ëpp ci maami yawut yi meloon fonkuñu woon waxi yonent yi dañu doon teral yàlla ci seen gémmiñ rekk waaye nanguwuñu kàddoom ci seen biir xol looloo taxoon yàlla yónni jaamam sakariya ca yawut ya ngir artu leen ngir ñu bañ a roy ci seeni maam ñoom ñi daan bare lu ñuy wax yàlla yàlla te faalewuñu kàddu gi leen yàlla jottali jaarale ko ci ay yonentam gannaaw ba sakariya artoon noonu yawut ya mu tàmbali di yëgle ni ramukat bi naroon a feeñe amunu jotu jàng lépp ci li yonent yàlla sakariya bindoon ci mbirum almasi bi waaye mën nanu jàng ay jukki ci téereb sakariya saar juróom ñent yonent yàlla sakariya dafa ci xamle woon ni almasi bi naroona ware mbaam dugg yerusalem mu ne bég leen bu baax yéen waa siyon damu leen ndax mbég yéen waa yerusalem seen buur a ngi ñëw ci yéen ku jub la te am ndam ku woyof te war mbaam muy cumbur doomu mbaam wante ci saar fukk ak benn sakariya dafa ci yëgle ni nit ñi naroon a gàntoo almasi bi te jaay ko ci fanweeri poseti xaalis mu ne wax naa leen su leen neexee jox leen ma sama pey su leen neexul ngeen bàyyi noonu wàññal nañu ma fanweeri poseti xaalis ngir sama pey te ci saar fukk ak ñaar yonent yàlla sakaraya yëgle woon na ci ne yawut yi duñu yem rekk ci jaay almasi bi waaye dinañu ko rey sax mu ne aji sax ji nee na bu loolu amee dina sotti ci waa këru daawuda ak ci yerusalem xelum yiw ak dagaan te dinañu wëlbatiku xool ci man ki ñu jam dinañu ko jooy ni ñuy jooye jenn doom kepp dinañu ko jooy jooy yu metti ni ab taaw te suñu ko laaje fan nga jële sa gaañu gaañu yi ci say loxo dina tontu ci biir kër ñi ma bëggoon laa leen jële ci kàddu yooyu la yonent yàlla sakariya doon yëgle ne almasi bi dina am ay liggéet ci ay loxoom fu mu leen jële nag ci ay mbokk yawutam ya ko naroon a jam te daaj ko ci bant moom la yonent yàlla sakariya bindoon te dëppoona tembe ak li yonent yàlla daawuda moom itam yëgle woon ci mbirum ramukat bi bi muy bind ci saboor naan ñu bëtt samay loxo ak samay tànk kon nag mbokk yi yàlla dafa bëggoon nu xam xel ne deewuk almasi bi ci bant ba dafa bokkoon ci pexe mi mu rabatoon bu yàgg ngir musal doom aadama ci peyug bàkkaar faawu almasi bi jub bi sonn dee ngir jubadi ci tënk loolu mooy waareb yonent yàlla yépp ndax loolu lépp leer na ci sa xel ndax dégg nga bu baax li sakariya yëgle woon ci lu jëm ci almasi bi juróomi téeméeri at laata almasi bi doon judd ndax gëm nga li yàlla yëgle woon jaare ko ci yonentam yépp wala bokk ndax danga mel ni yawut yi daan teral yonent yàlla yi ci seen gémmiñ rek te gëmuñu seeni wax yow nag ndax gëm nga yonent yi mbind mi dafay wax ci mbirum yonent yi ne bu leen xeeb waxu yonent yi ndaxte waxu yonent yi wér na te war ngeen ko fonk mi ngi mel ni làmp buy leer ci béréb bu lëndëm di leeral seeni xol ndax gëmuloo yonent yi mbokki déglukat yi jërë ngeen jëf ci déglu bi nu ngi leen di fàttali ne émission yi nuy def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am nga bind nu te dinanu la wax ni ngay def ba am leen su fekkee itam ay téere ci mbind mu sell mi ñoo la gën a soxal mën nga nu bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis bu leen fàtte def seen adresse ci mbind mu leer jërëjëf yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla wax mu naan ndax gëmuloo yonent yi